mettit dong lañ ci mun a euh, muy muy muy lu ñu metti euh, yàlla nag bu soxla dañuy nangu mais ku ne xam na euh situation bi lu lu lu metti la euh li ku ne xam na ne lu metti la euh nde c'est des jeunes journalistes et surtout mom euh Abdou Mamadou Abdou Mamadou Si, Particulièrement, moi je le, connais, euh, avec bien sûr, il Ande, qui rencontre rencontre Mounadef depuis plus d'un an. Chaque fois, c'est un gosse engagé, très professionnel, toujours présent, il est toujours là, exigeant et à l'heure. Euh, c'est une perte énorme pour la profession. Euh, di ñaan suñu borom teeru ko ci aljana yu gën a kawe yi li tax mu metti mooy nombre bi ñu doon ñett en même temps ñaa euh, cadreur euh, ak journaliste ñoom ñëpp ñu àndandoo suñu borom jël leen ci condition bi nga xam ne moom lañu xam ñun ñëpp bu doon ci beneen circonstance dañuy jàpp ne soldat bu daanu ci xare ak ngànnaayam Ils, ont laissé leur vie euh, pour servir la nation. Parce que nous aussi, l'union mission de service public qui informé et ci lolu lañu nous ku ne xam na moment ñu ngi euh, Tamba jëm euh, Kedou, man yalla dafa def Nous ngi won ci zone parce que ma ngi won ci daaka bi Nous bima information bi quand j'ai demandé ñu ne ma ñëpp dem nañu muy lu metti euh, ci sénégalais yi metti ci ñëpp euh, ñuy dalal surtout seen i mbokk ak groupe de presse bi nga xam ne foofu la ñu bokk mu di euh, groupe Léral. donc par ma voix maa ngi koy jaal ñëpp mais rawatina groupe Léral ak suñu frère Dame mais j'en profite également pour Dialeko, les jeunes reporters du Sénégal parce que c'est des gens engagés c'est des gens yoo xam beaucoup de lu lu jëmbale liggéey bi kanam ak cette profession li yalla na doon déclic déclic boo xam euh, dana fi jaare euh, indi dal ci li nga xamné mom modi euh, profession bi parce que ñom ci sen bop mom mi di Abdou Mamadou je euh, parce que nous avons la dafa euh, événement yi ñuy def dans le cadre du mouvement citoyen gëm sa bop yépp moko moko moko ko couvrir ba ci fait biñu euh, dem nañu aller retour pendant 23 heures ñu nek ci auto il fait partie de ces gens qui ont ne bronché wul xultuwul deful dara donc c'est dire que c'est un jeune professionnel qui est parti mais loolu nak euh, li ci dess rek moy yeen ñep ngeen ñaanal ko. dafa wara interpeller ñep euh et les décideurs en premier xam nga suñu tali dama koy wax tout le temps euh tali xat na xat bo xamne euh bu ci euh, bu fatalité de ñew rek musiba lay indi et tali bobu biñ ko defaree yàggut mais ku ne xam na ne mook suñu tali yëpp ñoo yem c'est des routes qui font qui font maximum 6 mètres donc ñaari camion rek bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu rombante dañuy fees tali bi donc euh, bu ñu ci boolee li nga xam ne moom mooy défaillance humaine euh, boole ci souvent ku ne xam na euh, nit ñi comportement bi ñuy am ci tali bi ça devient benn cocktail

xamme nako ko xam naa ko suñu borom teeru ko ci aljana yu gën kawé mom ak euh, Ousmane Ndiaye ak euh, cadreur bi di Yoro euh, dañu daanu ci tolu xaré nañu leen ñaanal ñaan li ñu soxla fi mu nekk ni c'est un tout quand je parle de de de ça pour moi c'est un tout xam nga axe bobu et bo xolé suma djumul c'est c'est un c'est un camion malien xam nga axe bobu dafa nekk axe bo xamné ne daanaka mën naa axe commercial la.

parce que faut war un hôpital de niveau 4 ou de niveau 5 pourquoi parce que euh, diggante Tamba ak Dakar déjà ça fait plus de 500 km. pour nga ça te prend minimum 6 heures donc admettons même nit en blessure nous war évacuer c'est-à-dire évacuer nit situation yoyo, bu faites defuñu ko euh, par euh, avion ça devient une catastrophe donc zone yoyo, c'est vrai nous ngi def des efforts mais efforts yi nañ ko gëna effort yi nañ ko gëna a dolli personnel de santé bi nek ci zone yoyu nañ leen gëna dolel parce que ils en ont besoin c'est vrai que li prétexte là pour euh, attirer l'attention de tout un chacun attirer l'attention des autorités ñi nga xamné ñom ñoy les forces de sécurité surtout pour ñu gëna bayyi xel ci contrôle bi ci ñi nga xamné ñom ñoy auto yi dem ak dik mais ku xol ni mbir yi demee ku xool image moi j'ai regardé ça une fois j'ai plus euh, nangootuma xoolaat image parce que j'imagine euh, la, la violence de de de de de de l'accident euh, nga nga imaginer ni suñu borom jëlé sen bakkan nga xamné encore une fois jot na ñu nit ñu delloo ci xel yi ñu bayyi xel ci sécurité doomu aadama yi parce que ñi nga xamné ñom ñoy les reporters bu ñuy dem ci tali bi buñuy dem ci yoon bi euh, da nga def assurance da def ak leneen mais am lo xamné euh, fatalité la bu fatalité euh, mais encore une fois nañu ci lu encore une fois jot na ñu nit ñu ci xel yi ñu sécurité doomu parce que ñi nga les reporters dem ci tali bi buñuy dem ci yoon bi euh, da nga leen di jox auto da ngay def assurance da ngay def lenen ak lenen mais amna lo loo euh, fatalité la bu fatalité ñëwee euh, yàlla yalla mooy joxe bakkan bakan yalla moo koy rocci mais encore une fois nañu ci sabab lu